tey dañu doon installé unité bi nga xamante ne mooy taxawal unité centrale bi fii ci zone u Casamance naturelle euh, ñoom ay ndenkaane yu wóor lañ jox ay ndenkaane bu ci njëkk mooy ndenkaane technique mooy commune yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci projet bi ci zone bi ñu gunge leen ba nekk sa suuf nga mën ko xàmmee ki fa nekk nga mën ko xàmme ci yan taxawaay nga fa taxawee nga mën ko aussi xàmmee bu baax mais mbirum suuf dafa ñëw ba dépassé ba fu mbirum euh, sécurisation foncière parce que soo waxee suuf wax nga mbirum sécurité alimentaire wax nga mbirum sécurité même wax nga mbirum démocratie wax nga mbirum gestion de conflit donc du ñu yem simplement ci saytu suuf si mais dinañ def lépp pour que action wu gouvernement bi fii ci gox-goxaan bi ñoom ñu gunge ko ci pàcc bi nga xamante ne mooy pàccu saytu suuf ak pàccu gouvernance foncière donc loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu sas kii nga xamante ne mooy suñu représentant di Mamadou Fadilou Keita nga xamante ne am na expérience bu rëy parce que ay ati at a ngi nii mu nekkoon ci direction cadastre euh, bu ministère de l'économie et des finance ak direct euh, à la direction générale des impôts et des et des domaines